waaw man la bu Ka responsable affaire commune bu Affé bon daaw da ñun euh, jeudi le 24 janvier bi passé taxawala noonu suñu comité électoral ca Affé Jolof ñëw nañ ak doole wuy sikk fekk nañ fa responsable yëpp ci njiitaay maire bu Affé waaye li ñuy gën a surprise mooy ko ne dañoo ñëw fekk fa ñëwul woon di defar dañoo ñëw woon pour génne ñenn ñi mun a placé wu parce que nee nañ ne comité électoral yu maire yi ñoo koy gardé ñoo koy ñoo koy jiite ne woon naa leen nag ñun buggoon nañ fu ñu sukkandiku mooy nañ am circulaire wala euh, fu ñu fu ñu mën a xam ne lii maire yi ñoo ko mën a jiite. waaye ci loolu consensus lañ séentu woon danañ waxtaan mën a juboo ba ñuy ñaareel wax bi commencé nañ wax ne dañuy voté ci biir salle bi ñu ne leen benn vote du am lu mooy vote présidentiel moom moo war a am mais beneen vote warut am diggante feek élection bi. ba ñu commencé nar a def vote ñun ñu génn saal bi dem suñu yoon léegi nag ah, def nañ seen comité comité électoral boobu ñun newuñ ci ba mu ne ñun nag affaire 19 villages la 17 villages yi amul kenn ku ci nekk kenn newu ci waaw def nañ seen comité ba pare ñun tamit def nañ suñu comité déposé nañ ku ñu ko war a déposé léegi nag waa parti bi la ñuy sànni loxo ñu ne leen nañu wax ci lii li nga xamante ne du élection présidentielle élection locale la parce que fu mu amoon jafe-jafe fu mu waroon a def ay investissement am defu ko léegi nag fan la xaar mooy pour ñu jox xaalis campagne présidentielle bi mu yóbbu ko fi di préparer boppam loolu munuñ ci ànd ñun loolu moo tax ñu génne ñu ci biir comité électoral bi. Mhm. fan la diggee woon lu munul mën naa joxe euh, kii Tiringel. Mhm. village bu Samba Ngina Ba mooy seet village bi. dafa amoon ak ñoom jafe-jafe parce que diggoon na leen ay tuyaux indiwu fi mu ne nii bañ defee comité bi dem na foofu nee na leen balaa ñuy campagne danaa fi indi ay tuyaux fu mu koy jëlee ci xaalis campagne bi ak village Baro loolu la leen dikk ñun nag loolu yëkkatiwuñ lan moo ñu xaalis bi mu dem ci militant yi fu mu war a jaar ñu dem votel président mais que ñu votel ay maire tollooguñ foofu loolu moo tax ñu séparé ñu ci biir comité bi pour mun a préparer seen campagne locale. Mhm. anduñ ci tey anduñ ci dégluwuñ ci benn responsable nag mënuñu d'accord ak ñoom ci loolu. Mm-hmm. est que est-ce que ngeen préparé woon ngeen euh, vote bi. vote euh, vote bi bi leen proposé wu. préparé wuñ ko parce que waru fa nekk ñoom ndax ndekki préparé nañ ki jëlee ay oto sol saal ba fees ne léegi ku ànd ak maire na yëkkati loxo loolu fu mu mën loolu loolu man bu doon am kon euh, vote vote mënu fi xej ànduñ ci. Mm-hmm. waaw kontaanuñ ci aussi tam ñu ngi woote parti bi nañ ci wax. est-ce que responsable at nañ jëm wax nañ kuñ ko war a wax wax nañ suñu responsable sam njóobeen nee na nañ def jàmm ba président mun a jàll waaye loolu du joxe jàmm wax nañ ko maître ka mooy coordinateur wax nañ ko wax nañ ko Adama Sow wax nañ ko kilifi ci kaw ñu ngi koy dénoncé foofu li lan moom mën a am muy jàmm mooy comité bi nañu tas ñaar yëpp sélectionné comité bi fépp fu euh, xaalis commune bi dugg ñu teg ci bët mhm. mais pas ñu koy jël di ko campagne ay local yu ñëwagul loolu du jàppale Macky sàll ñàpp jàppale sa bopp la. donc yéen monté ngeen seen comité électoral. monté nañ suñu comité électoral ñoom tamit monté nañ. ba déposé ngeen. ñu déposé nañ. Mhm. waaw.